salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen ñi ngi topp ci askan wi TV dafa am ay journaliste yoo xamee ne ñu ngi toll ci téeméer ak di topp ñoom nag dañu jël seen ay responsabilité ci troisième mandat bi nga xamee ne lëmbe réew mi te ki war a wax ngir mu leer ci boppu nit ñi ba tey waxagul mu di président Macky Sall ñoom journaliste yooyu nag comme 2011 daf leen fekkoon ci terrain bi. ñu xam li xewoon gis ko teg ci seen bët ñoo daal di jël seen ay responsabilité tey bind benn tribune boo xamante ne moom lañ ko tuddee tex bi fàttali la nga xamee ne xewoon na 2011 ak la taxoon sénégalais yi génn ci mbedd mi doon xeex ba am ñoo xamante si ne sax ñàkk nañ ci seen ay bakkan muy bataaxal boo xamante si ne saaru fàttali lañ ci jublu ak saaru alerte ci li nga xamee ne mën naa xew su fekkente ne Euh, kii nga xam ne si ne mooy président Macky sàll annoncé na lii di troisième candidature am loolu nag defe naa muy loo xamee ne lu ñu war a saluer la ndaxte képp koo xamante si fekke woon nga 2011 référendum bi fekk la fi ñu wote woon ko ngir ne dañuy jële trois waxi troisième mandat ci réew mi bu ñu demee ba waxi troisième mandat ñëwaat ci réew mi yow mi fekke woon Euh, yanu na maanaa nga wax la nga fekke woon ak li nga xamee ne mën na xew su fekkente ne troisième mandat ñëwaat na ci penc mi kon ñoom li ñu def nii ñëpp la war muy société civile bi muy patronat bi muy ñëpp ñëpp ñoo war a yëkkati seen kàddu ci li nga xamee ne mën na xew ci li nga xamante ne bu fekkente ne troisième mandat euh, wax nañu ne dafay amaat ci réew mi kon euh, dañ leen di wax jaajëf ci noonu nag ci la ñuy jàllee ci li nga xamee ne mooy li ma waxoon waa Pastef yi ne leen da ngeen a war a fexe ñu leen di tëj ngir que tëj googu ñu leen di tëj nekkul faiblesse ci yéen waaye avantage la li waral avantage la waxoon naa ko moo di ne plus prisonniers politiques yi di gën a bari ci li nga xamante si ne moo di prison yi plus Macky Sall di gën a am problème ci image rawatina fële ca bitim réew loolu li koy moo di ne Aïssata Tall Sall xam ngeen ne dafa dem fële ca parlement bu européen waaye daf ci am benn sénateur boo xamante si ne dafa jël kàddu defe naa Grèce la jógee je pense sénateur bi te itam moom euh, posé woon na candidature am ci élection présidentielle kon kooka ku mag la fa mu daal di wax Aïssata Tall Sall euh, ci troisième mandat bi inquiétude bi ñu ci am ci fulu bi nga xamante si ne président Macky Sall def na ko ci waaye tamit mu ñëw ci prisonnier politique yi tamit na ko ba tey dañu am inquiétude maanaam dañu am njàqare ci président Macky Sall par rapport ak prisonnier politique yi tamit na mu bare ci Sénégal kon loolu dafay wane ne prisonnier politique yi lu mu gën a bëri. maanaam day avantage Pastef waaye day désavantage ki nga xamante si ne mooy président Macky Sall ci image ndaxte ñi nga xamee ne ñoo ko war a défendre bu ñu génnee comme classe ak Aïssata Tall Sall gi danañ am jafe-jafe ngir layal loolu loolu moo taxoon ma ne euh, cité kër góor gi stratégie bi ci Pastef war a def moo di ne euh, cité kër góor gi naka la ñuy fay yokkeewee limu prisonnier politique yi comme ka dem ci kër gor gui nekul li nga xamante si ne mm, la dem fa amul ben loi bo xamante si ne tere na kenn mu dem ci kër gor gui kon bo fa demé buñ la fa jappé dañ la fa japp parce que da nga and ak Ousmane Sonko ñëwoon ci kër gor gui lool kep moy deli bi lool kon prisonnier politique ngay doon directement loolu nak mo waralon ma wax ni Pastef dafa war a arrêté di wax naan dafay dindi barricade yi ndaxte dindi barricade yi amut sens tey bu fekkante ne da ngay wax ne damay dem cité kër góor yi ngir dindi barricade yi déjà yow joxe nga motif boo xamante si ne mooy tax ñu arrêté la te mën nañ koo wutal aw lay la ngay wax moo dina man damay dem nemmeeku ji Ousmane Sonko soit Pastef créé loo xamante si ne maanaam euh, opération wane xar kanamu Macky Sall ci àdduna bi exemple. loolu mooy laan moo de ne ay nit ñoo xam ne si ne dañuy jël volontaire chaque jour dina am ñu dem ci te kër góor gi bu ko defee ñu arrêté leen dugal leen ci kaso bi ngir limu prisonniers yi yokku limu prisonniers politique yi bu yokkewee euh, image su Macky Sall dafay gën a yàqu ci àdduna bi bu ko defee Pastef dina mën a jaar foofu wane xar kanamu Macky Sall dëgg dëgg dëgg dëgg pour que moom Euh, seen campagne moo war a doon naka la ñuy def ba adduna bi xoole Macky Sall comme nañ doon xoole Yaya Jammeh ndaxte lu mel noonu képp moo mën a tax président Macky Sall réglé ci yenn yi su fekkente ne moom bëggul àdduna bi xool ko bët bañ doon xoolee Yaya Jammeh dina réglé ci yenn yi nga xamante ne da koy def te tegu ko ci luwaa tegu ko ci dara su ko defee Pastef bu président Macky Sall dee def yoo xamante ne teguwul ci loi teguwul ci dara waaye ci doole la ko teg te doole xam nañ ne dictateurs yi ñoom ñoo ko utiliser ñu jël image boobu nga xamante si ne président def na ko te teg ko ci doole ñu fexe image boobu wër àdduna kon dañu war a créer genre silence boo xamante si ne silence dem nemmeeku Ousmane Sonko la ngir wane xar kanam Macky Sall ci àdduna bi c'est-à-dire dem seeti kër Ousmane Sonko du délit waaye gis ngeen yéen àdduna bi kane ku képp koo xamante ne da ngaa ñëw ci te kër góor gi ne da ngaa bëgg seet si Ousmane Sonko sax dañ lay coppati yóbbu la ci kaso bi ci loo xamante si ne tegewul ci benn texte tegewul ci benn loi bu ko defee loola dana wane xar kanamu Macky Sall ci àdduna bi kane kii daf li ñëw di leen jaay affaire démocratie waaye moom dëgg-dëgg dictateur la gis ngeen image yi moo ngi nii gis ngeen. preuve yi mo ngi ni lolo da fay won ay preuve kep ko xam da ngay dem cité kër góor gi da ngay nga am ku lay filmer ñu woné arrestation yi nga xamante si ne am na fa ñepp tek ci seeni beut lolo mo wara war doon seen stratégie way stratégie wu jële fa euh, ki barricade yi amul sens amul njariñ ndax te boko fa jëlee tay bu suba mën nañ ko indiwaat kon lolo xex la bo xamante si ne da nga koo perte dèjà laataa nga cey dem amul sens amul njariñ te la muy laaj ci dégâts ak ak ay conséquences jaru ko mais dem ñu jàpp la dugal la ci kaso bi loola metti na mais la muy yàqal président Macky jar na ko ci boo leen xamee boo leen xamee combat bi la mu mën a yàqal président Macky ci image am ndaxte bëgg naa doon dara ëllëg exemple su jógee woon ci présidence gi maanaam bu nekkatu woon président wu Sénégal bëgg na jiite ci instance yu mag yi te instance yu mag yi nag boo mënoo ko jiite fekk yow ba nga nekkee sa réew def nga yoo xamante si ne ay loi ak ay droit maanaam daf la ko interdit woon da nga doon salfaañi àq ak yelleefu doomu aadama yi su boobaa doo mën a jiite yenn instance yi nga xamante si ne dañuy xeex ngir ñuy respecté àq ak yelleefu doomu aadama loolu moo tax foofa boo leen fa téyewee da ngeen am foo xam ne da ngeen fa téye président Macky Sall te dana arrière su fekkente ne bëgg na carrière bu baax ëllëg forcément day arrière loolu mooy li nga xamante si ne moom lañ doon yokk ci foofu ngir ko ñu xam ka ne dañuy juum. ci taxaw naan dañuy jëli bëlki bëlki si foofu loolu amul sens amul njariñ waaye naka la ñu war a wanewee xar kanamu Macky Sall ci àdduna bi ba àdduna bi yëpp teg seen bët ci li nga xamee ne président moo ngi koy def di ko def ab père de famille boo xamante ne daf ko tëj ci këram tëj jabaram tëj doomam kenn mënu leen seeti ñoom itam mënuñoo seeti kenn loola euh, maanaam ax ak yelleef doomu aadama la président Macky Sall xañ foofu ay nit jëlal sax politique bi nga teg ko fee mais nit nga ñëw tëj këram tëj doomam tëjaale ay jabaram kenn du leen seet si ñoom itam dañ mën a seet kenn loola xam nga ne lu rëy la ci adduna bi boo leen ko exploité exploité leen image boobu ngir yàq deru président Macky Sall wala bokk ngir wane xar kanamam ndaxte loolu du yàq der ndaxte lu am la waaye wane dëgg dëgg dëgg kii mooy kan ak lan lay jëf ci am réewam pour que ëllëg su bëggee jiite yenn instance mag yi dana am problème bu ko defee loola dana tax mu reculer su fekkente ne bëgg naa tekki dara ëllëg ci àdduna bi jërë ngeen jëf